Thank you.

waaw di euh, di la di la sant bu baax a baax waaw di la présenter euh, bergerie Ibra Ndack Lo allah waaw donc euh, di bergerie boo xam ne en fait ñoo ngi débuté élevage bi en 2019 macha allah donc depuis lors ñoo ngi liggéey ci wàllum laadum mhm. donc élevage laadum di améliorer di améliorer

ak Siré euh, Diakité donc ñom japp nañ bu baax a baax sama élevage donc ñom ñoma ma jox ay sujet waaw donc euh, voilà Siré jox ma benn doomu ben sëtu aussi mom la mom la commencé wa Jibi Ndiaye joxoon ma benn doomu benn sëtu commandant costaud wa allah waaw tàmbalee ci waaw macha allah booba léegi yàlla yàlla def ma jaaroon sa kër fekkoon fa benn jeune ma waaw tey moom nga indi waaw tey moom laa indi tay euh,

waaw boobu moo ñu amoon ay euh, ay huit mois je pense. huit waaw huit mois côté yooyu. waaw mu jugee boobu bon Sagnambour ñu ñoo ko juddalu. Ah, waaw ñoo ko juddalu. donc euh, Siré moo ñu joxoon euh, yaay ji Siré Diakité. Ah. waa jox ñu yaay ji ba ba muy ñëw nag dafa àndaale tëb. Mhm. léegi ba mu ci booy bawol lañ ko tegoon quoi donc ba mu ñëwee. wàccee euh, wàccee euh, Sagnambour. macha allah waaw ah. yaa ji moom yaa ji moom fi da ko jënd mu ànd ak bi ñëw. voilà voilà tout à fait ok ci booy bawal. tout à fait am 30 moo ñu gis ko mu nekk maanaam bu rafet. Euh, mhm. boobaak léegi lan la liggéey ci bergerie bi. waaw Sagnambour moom wax dëgg yàlla macha allah am nañ naan macha allah rek bon. parce que xarla boo xam ne boo ko bëggoon jënd jamono bi wala nga jënd nga fekk ko ci beneen bégerie di ko jënd bon di nga di nga fay xaalis bu bëri donc dama naa sinu wërsëg desee nekk moo tax mu ñëw juddu sini kër quoi waaw parce que instant yi moo ngi liggéey moo ngi moo ngi liggéey di produire ay ay ay ay ay ay xar yu doy waar dëgg yàlla moo ngi euh, produire ay ay ay tëng yoo xam ne macha allah daal moo tax andi na ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari doomam

Euh, waa ji da ci euh, nu mu tudd waa ji da ci dalay lay may tëb. comme ça mu ñëw bu wàccee nga commencé élever élever élever. Mhm. bu wàccee góor di nga ci mën liggéey bu wàccee jigéen tamit di mën a liggéey. macha allah moom moom ba euh, la fekk muy liggéey wala moom moom en fait bam ba muy ñëw. waa fekk na fi benn maal. Mhm. benn maal boo xam ne bon kii moo ko jur abo. doomu doomu kii doomu magistrat.

tëng yooyu lañuy liggéey ak ak saa ñaambur quoi donc sañ ah. saa ñaambur la ñuy teg ci tëng yooyu ah. muy muy muy muy génne ay waaw muy produit ay ay ay kii ay bête yu exceptionnel quoi allah ah. euh, tey ko moo kan nga indi gis naa fi euh, nga indi ko ak trois femelles waaw waaw moom bon moom tey moom moom lañ indi saa ñaambur lañ indi waaw ak euh, ki ni kala ki ci nopp ñu espoir la espoir la ki doomu noir blanc bi ci bëgg ñu doomu ah. mal waaw doomu mal bobu ma lay wax doomu jibi la waaw waaw doomu jibi la mom ñaata mo mom mo ngi ci euh, mo ngi ci ay 14 mois 14 mois waaw mo ngi ci ay 14 mois quoi bi top euh, borom la lu ñu lu noir blanc bi cornu wex yi waaw bobu mom en fait aussi doomu mal bu ñëk bi la doomu doomu ki bi doomu abo bi moko jur waaw ak ben femelle bo xamné bon Alla gay mo ñu joxone femelle bobu waaw léegi bañ ci liggéey ba pare Alla gay daf ñu ko soxla waat ci ñun. wala la laajaat ñu ko ñu joxaat ko xarbi lool day wone élevage mom voilà euh, yaatalante la rek. macha allah macha allah voilà añal bële tuur rob bu ñaal bi. waaw rob bu naaru moom doomu saa ñaambur la moom. waaw rob sama ñaar macha allah moom doomu ah, saa ñaambur booy xool ah, moom dafa ñëw. andaale andaale andiwaat rob bu naar bi quoi. macha allah donc rob bu naar bu ci saa ñaambur moom la andiwaat. moom ñaata mois moom. waaw moom moo ngi ci euh, moo ngi ci onze mois. waaw onze mois waaw. ñebe bële kële grande femelle bële. waaw grande femelle bi moom mooy yaayu saa ñaambur. ah macha allah waaw moom mooy tabara mooy yaayu gétt gi waaw. mooy yaayu gétt gi waaw waaw mooy yaayu gétt gi waaw moom moo ngi si ci trois portées waaw. ba mu wàccee waaw ba mu wàccee après kii la ci teg. kii waaw ah, waaw waaw mu après mu teg ci. Euh, ñaar ay seex quoi kon Siré ba ma koy jaay añel la. waaw ba ma koy jaay añel la. allah macha allah ba ma koy jaay añel la. macha allah añel bu ndaw boobu nag ñebe bi. waaw ñebe bi nag moom mooy attraction foire bi. waaw ñebe bi mom moy doomu doomu sa ñaambur la nag waaw doomu sa ñaambur la comme pareil aussi mon ko jurok ben ben femelle buñu ñu àll gay joxoon mooy bu lay wax rek mom lañ mom la àll gay soxlawaat ñu joxaat ko ko ah non mais grand euh, ah. kon liguey bi rafet na boobaak léegi nak euh, à 4 ans yi est ce que ben phase nga nek est ce que commencé nga nag euh, élevage nga ci gis sa bopp wala ba léegi yaa waaw en fait élevage mom comme li wax rek début bi mom yaay yaay yaay financé quoi ah. waaw début bi yaay financé dafa laaj patience ah. mais ñoo ngi toll ci période bo xamné ne ñoo ngi

waaw donc ñoom ñooy bu nekkee xar yi dafa feebar xar ñoom ñooy jug bu nekkee xar yi dañuy lekk ñoom ñoo leen jox xont voilà donc ñoom daal liggéey bi yëpp donc mention spéciale à à à Baye Mbaye euh, Pa Matar voilà Sidi voilà nu mu tudd Maas. macha allah waaw Baye Mor. waaw tout le monde rek nu mu tudd Bas. waaw mention mention spéciale à tout le monde. quoi wax dëgg yàlla. waaw comme Bergerie Ibrahima Daglo, tamit équipe la. voilà équipe la quoi. donc euh, voilà man loolu laay fonctionner quoi man moom sama liguey mom dama bëgg en fait à chaque fois ñuy demandoo équipe quoi. ok waaw macha allah parce que mbolo mo ëpp doolé quoi. macha allah numéro bi adresse bi. waaw wa par adresse bi mo ngi nek parcelle euh, Assainies unité 16. waaw Parcelles Assainies unité 16 euh, ci wetu poste de santé bi. macha allah léegi numéro bi boy bi dina la ko jox waaw donc numéro bi waaw 70 808 87 98. macha allah waaw moy numéro ah. donc di aussi di rafetlu euh, organisation Saladam bi donc organisation bi jaar jaar na donc euh, donc c'est une organisation professionnelle donc di rafetlu sen liguey voilà di euh, di wax éleveur yep ñu jappalé len pour voilà pour gëna mëna am gën a gën élevage Sénégal ci kanam quoi jaajëf grand jaajëf Cissé jaajëf